internautes yi ñuy bàyyi xel ci seen info point net ak seen info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaar tey mercredi di 16 mars ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi. l'armée bu Sénégal ñu ngi wéyal opération bi nga xam ne ñu ngi koy amal fële ca Casamance ngir daal nasaxal mouvement rebelle bii di MFDC nga xam ne Salif Sadio moo ko jiite nee nañ nag euh, ñoom sax jot nañ teg loxo ci benn base boo xam ne am na am na solo loolu amoon na solo kon ñii di rebelle te mu nekk fële fi ñuy wax Nord Sindian nee nañ nag foofu sax ay camions yu bëri nga xam ne dañ doon daggee bant euh, Casamance di ko yóbbu gàmbi te sax doon fay li nga xam ne moom mooy ay taxes ñii di rebelle te rebelle doon jëfandikoo boobule xaalis nee nañ nag euh, kon teg nañ loxo ci boobule base. ba léegi nee ñeen ñii di soldats yu sénégalais ñu ngi wéyal seen opération bi ngir daal mën a teg loxo ci yeneeni base yoo xam ne kon MFDC ñoom ñoo ko moom. professeur Cheikh Oumar Diagne gannaaw bi mu xamlee ne nag waa dikk dañ ko convoqué woon ba sub euh, tey bii moom nag gannaaw bi mu demee wuy ji ba pare euh, xamle na li taxoon kon ñu woolu ko moom nag nee na ci ab plainte boo xam ne daal kii di Jibril moom moo ko amal ci lañ ko woolu woon wante nag moom nee na euh, fi mu nekk nii semaine prochaine kon la fa war a delluwaat. Cheikh Oumar Diagne nag nee na dina ko neex lool mu indi ay tontu ci li mu wax ci action mondiale des parlementaires. ak rôle bi ñu am ci organisation sexuelle et identité de genre muy kuréel googu ñuy wax OSIG maire bu commune bu Sindia di Thierno Diagne nga xam ne dañ ko tegoon loxo démb ci mardi bi ci mbirum euh, njuuj njaaj jëm ci wàllum suuf moom nag defeere nañ ko bésub tey bi ci tribunal bu mbuur gannaaw bi nga xamee ne ñaari plainte pour escroquerie foncière dafa nekk ci ndoddam buñ sukkandikoo ci suñuy naataangoo yu libération nee nañ nag nekkul moom kese sax lañ jàpp wante am na yeneen ñaari jegeñaaleem yoo xam ne kon jàppale nañ leen moom moom moomulee di noo Diagne nag ñu fàttali ne dañ koo falaat ci commune bu Sindia ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ci la bokk Aminata Touré mi nga xam ne nag président Macky Sall moom la fal coordonnatrice bu pôle parrainage bu Benno Bokk Yaakaar démb ci ab point de presse boo xam ne waa Bennoo Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko doon amal euh, moom nag sànni na xeer opposant bii di Ousmane Sonko nga xam ne day jiiñ nguur gi ne ñoom ñoo ko complot ci mbir mu ko booleeg aji Sarr moom Aminata ture nag nee na loolu ñoom seen yoon nekku see ndax nekkul ne Bennoo Bokk Yaakaar moom moo yor agenda bu salon Sweet Beauté bi nga xam ne Ousmane Sonko demoon na fa te Aminata Touré nee na loolu affaire boo xam ne lu privé la te sax justice moom moo ko war a lijjanti kon ñoom seen yoon nekku si xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy guerre ba am fële ca Ukraine nga xam ne eh, Russie ñoo leen songu boobaak léegi ëpp nañ ñaar fukki fan nee nañ nag bésub tey bi ca capitale ba di Kiev dégg nañ fa ay sox yu tàkk ak it saxaar su bëri joo xam ne jogoon na jëm kaw asamaan. ki nga xam ne nag moom mooy président bu Ukraine di Volodymyr Zelensky mu ngi woy di woote ndimbal bésub tey bi sax amal na ab discours fële ca congrès bu Amérique. wante ki nga xam ne moom mooy secrétaire général bu OTAN moom xamle na ne ñoom envoyé wu ñu ay nit te it envoyé wu ñu avion foofu la ca Ukraine lii la ñuy doon tey cee xibaar rabal seen taw lu ñu jox daje ëllëg jaa jëf.